ñu ngi leen di nuyu yéen ñi nga xamante ne yéen a ñuy topp ci King Taalif ñoon di leen histoire boo xamante ne mi ngi wax ci wàllum soxor nga xam ne soxor lu bon la ku ko dëkkee sa xol daanaka ci naqari lay dëkk te doo am li nga bëgg dafa amoon ci jamono yu yàgg koo xamante ne ak kilifa la woon goo xamante ne nit ñi dañu fa daan dem di sàkku ji ndimbal ca moom nga xamante ne heure boo fi ñëwee da fekk ñu bari ñëw ci moom di sàkku ji ndimbal mu am benn waay joo xamante ne nag dafa amoon aw fas fas wa daal di dee nga xamante ne bi mu dee nag amatul lenn lu mu bàyyee amatul lenn loo xamante ne moom lay doxe jaay soxlaam mu daal di dégg kilifa gu baax googu mu ne naa fa dem daal di dem ca moom bu ma demee diis ko samay soxla ba mu demee nag ñëw daal di fekk taalibe yépp daal di toog mu agsi daal di wax sëñ bi daal na ko ah man damaa bëggoon loo xamante ne dinaa ci man di liggéey di ci doxi samay soxla di ci jàpp di ci wommat nga xamante ne nawet bi dinaa ciy mën a bay bi mu ko waxee nag sëriñ bi daan na ko ah, loolu de fi mu na agsi gu fi xanaa nga toog rek bu ko fi yàlla indee bu soobee yàlla ñu daal di ko la koy jox mu daal di dem wut ab roqam daal di fay toog bi mu demee nag toog ci roq bi nag nga xamante ne toog na lu yàgg benn waaye daal di fay ñëw indi fa àddiya am mbaam moo xamante ne mbaam mu suur a suur la sëriñ bi daal di dem yeewlu mbaam mi ca biir nga xamante ne da ko daal di yeew ca gétt ya bi mu ko yeewloo nag daal di wax woo bëkk néeg ba mu ñëw mu daan ne ko kee ñëwoon fi doon sàkku ndimbal day jox ko mbaam moomu bi mu ko ko waxee nag ndeke loolu dafa naqari bëkk néeg bi ndax yéenewul waa ji mbaam mi ndax mbaam mi daal suur gi mu suur ak mbaam mi baax gi mu baax mu daal di génn tàmbali naan sëñ bi moom xanaa moom dafa nag mbaam mii ni mu baaxee ni mu suuree mu bëgg koo jox kële nga xam ne joxu ko waa ji sëñ bi soññ na ko ci ay yoon jox ko ko ba ngoon sëriñ bi daat ko koy soññaat daan ne ko demal nga jël mbaam mi nga jox ko ko bi mu ko ko waxee nag mu daal di dem daal di dikk nga xamante ne yéenewul mbaam mi waa ji mu daal di dem ci sëñ bi daan ne ko ah mbaam ma de moom rëcc nañ xam naa ne topp nañ ko ba sonn waaye nag mënuñu koo jàpp waaw mbaam ma daal rëcc na dem na te wër nañ ba sonn topp ko ba sonn waaye daal gisuñ ko te mënuñu koo jàpp sëñ bi ne ko ah baax na daa di waxaat waa daan ne ko kon toogal fële xaar lu yàlla indiwaat rek su ëllëg sa nag yàlla daat fay indi koo xamante ne dafa daal di indi benn fas woo xamante ne wu baax la te daal di suur lool bi fas yu baaxee nag te suur lool sëriñ bi daal di wax waa daan ne ko comme mbaam ma rëcc ne dama bëgg nga jël fas wi jox ko waa bi mu ko ko waxee nag loolu daat koy gën a naqari lool ndax xam na ne fas wi moo gën mbaam ma fuuf léegi nag bëggul mu jot ci fas wi mu daal di dem fexe ba lijjanti daal di indi mbaam mi bi mu ñëwee daan na sëñ bi ah mbaam ma de moom mujj na feeñ sax xam naa ne moom mi ngi nii ndax bañ waa ji sëñ bi jox ko fas wi bi loolu amee nag sëñ bi daan na ko ah bay boo nga daal di far nga jël ñaar yépp nga daal di ko koy jox bi mu ko ko waxee nag loolu daat koy naqari lool nga xamante ne mujj na lu defut lu dul jël ñaar yëpp daat ko koy jox nga xam ne sëñ bi da nga xam ne waa ji da doon soxoree waa ji menn mbaam far siñ bi boole mbaam fasu fas wi yëpp daal di koy jox kon soxor lu bon la te lii nag liñ ci mën a jànge mooy liñ naan buur aayul dag ya aay léeg-léeg nga gis kilifa goo xam ne ku baax la ñu bari jàpp ne dafa am aw melokaan fekk ne ñi ko jege rek ñoom ñoo ciy bundu xatal nit ñi waaye bu doon moom ak moom rek amul benn jafe-jafe te képp koo xamante ne yaa ngi dëkk ci soxor sa xol du neex mukk ci naqari lay dëkk ndax kii doon soxoree mbaam mi far ñu boole mbaam fas yëpp daal di koy jox nañuy raxas suñ xol yi te yéenante jàmm te lépp loo xamante ne waaye am na ko ñu yéene ko ku ko def rek da nga noppalu waaye képp koo xamante ne yaa ngi dëkkee di soxor sa àdduna du neex ci xol bu naqari ngay dëkk ñu leen di wax ngeen di wéy di abonné ci King Taalif ci YouTube bi tey partagé vidéo bi te di ko seem ñu xam ne vidéo bi neex na leen jërë ngeen jëf ngeen xaar ñu ci yeneen vidéo